noo ngi sant yàlla di julit yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan yàlla mu dolli ko xéewal ko mujj moom ak njabootam ak sahaabaam ak képp ku jaar jaw yoonam baat nay tukki mbokk yi ci waxtaan yi nu doon waxtaane lu jëm ci jikko ju rafet ak jëflante bu rafet ajuma ji weesu rek doon nanu waxtaane fegal bindeef yi lor mooy ku ne fexe ba du lor bi teef waaye jamono yu ni toll nag nga xam ne réew mi dañoo nekk ci li ñuy tuddee campagne campagne électorale te ay élection muy vote war cee topp tànn ñu ñu dénk dëkk yi ak ñu ñu dénk département yi jamono jii buñ ci tollee dana baax nu waxtaane euh, ku ci ne la cay waru garam nam te war a taxawe muy ki bëgg ñu tànn ko ak ki nga xam ne mooy tànn kuy def politique rek ak anam gu mu ko mën di defee ndax anam yi wuute lañ mën a defee politique waaye anam gu nit mën a defee politique rek la jiitu ci li war ci moom mooy la ko ca dugal doon njariñul mbooloo mi la ca dugg ngir di jéem a sabablu ngir luy jariñ mbooloo mi yépp waaye waru ca duggu ngir njariñul bopam rek lolou guy def politique mom ak anam gum ko man di def rek lolou la wara ñeek lolou la wara ñeek baye xel mo xam da bëgg ñu tànn ko deeng ko dara wala sax tànn dafa jot mom mu dem bokk teñe ñuy wala sax dafa bëgg bokk ci parti wala sax dañ koy rek lo xamne ne ko mom lu mu ci manti doon lu caa war a jiital njariñul mbooloo mépp war na noo xam ne it politik buñ ko defee ni mu ware te mooy di ca seet li njariñul mbooloo mi loola lu rafet la lu baax la lu ñu soññee la itam doonut lu ñuy moytuloo nit ñi fekke noonu lañ ko defe mën naa doon sax lu am tuyaaba ju rëy ndax njariñ la ca mën a juddoo dafa yaatu te jëf ju baax lu njariñam gën a yaatu rek tuyaabaam gën a bari te ku ko defee noonu nu ko waxee jëf ju baax lay doon njariñ lu yaatu mën caa juddoo kon tuyaaba ju yaatu itam ju bari mën caa juddoo li ñuy wax campagne électorale nag doonut lu dul rek nu bëggee a dénkaane am ñu ñëw ne bëgg nañ ñu dénk leen kii ne bëgg naa ñu dénk ma ko kii ne bëgg naa ngeen dénk ma ko kii bëgg naa ngeen dénk ma ko kon ñoom la leen war mooy kenn ku ne mu wone rek luy tax ñu war ko koo dénk te duñ ko dénk keneen mooy lan la bëgg buñ ko ko dénkee lan la bëgg a def liñ koy dénk nan la ko bëgg a loolu mu war a doon campagne électorale mooy ci loolu kenn ku ne wane lu tax ñu war koo dénk te bañ a dénk keneen man naa wax sax ci ñi muy xëccool buñ ko dee tuddee xëccoo waaye nam cee waxee it wër génn lañuy wax ñoom mu di ko leeral nit ñi bu fekkee sikk ma nga ca walla lor mu leeralal leen la ca ne ca sikk walla lor luy tax ñu bañ koo tànn te tànn ko moom waaye wër weesu loolu nag di àgg ci di di leen tuumaal walla di leen weer wala rek yàq seenub der daal ngir nit ñi woon leen ginnaaw loolu warta doon loo xam ne moom lañuy defee campagne électorale bari na nag ñoo xam ne dañ cey dugal loola waaye loolu waru caa bokk bu dee kii tànn nag moom it day jiital njariñul mbooloo mi nam koy jiitale mooy ki muy tànn na gis ne moo ëppal njariñ mbooloo mi na loola rek tax ci xam-xamam moom ñi mu gis daal ku nekk ne bëgg na ci xam-xamam kii la jàpp ne buñ ko tànnee mooy ëppal njariñ mbooloo mi bu sukkandiku ci loolu rekk ba tànn ka muy tànn bañ a jiital yeneen bañ a jiital yeneen bokk na nag ci lii tax nit ëppal njariñ mbooloo mi bokk na ci mu doon nit ku wóor ku wóor ku wér alquran netti lanu nettali nanu ñaari yonent sayidna yusuf alayhi salaam ak sayidna muusa alayhi salaam sayidna yusuf moom moo doon sàkkul boppam am bëgg bëgg luñ ko dénk ci mbiru réew mi waaye ba koy sàkku it ba muy wax lu tax ñu war ko koo dénk wala ñu man ko koo dénk da caa boole ne moom ku wér la ku wóor la kon wér ak wóor day lu munta ñàkk ci ku ñuy dénk kuy tànn bëgg a danga xool ku wér da nga xool ku wóor keneen ki mooy seyt Seydina Muusa moom dañ ko doon sàkkul ñu jël ko ci ab liggéey waaye ka ko doon sàkkul it la mu wane ngir ñu war ko caa mën a jël dafa wax ne ku wér la ku wóor la kon wér ak wóor bokk na ci nattuwaay yi jiitu yi nuy war a jiital ci bu nuy tànn bu ñu tànn di dénkaane lu mën di doon bu dee jamono yii ay dëkk la ñuy bëgg a dénkaane ak i département kuy tànn ku ne war na caa xool loola war na caa jiital loola xool nag leneen la cay tege loo xam ne lépp day dellu ci njëriñul mbooloo mi noo ngi ñaan yàlla mu dimbali nu ba wàllu gune rek nu cay doxe na mu gëne ndax ab jullit wàllam yépp wàllam yépp dundam gépp gépp gépp lu ci ne da cay déglu yàlla amut lenn lu muy def loo xam ne yoonu yàlla nekku ci ñu bari dañ jàpp ne politique mbirum du mbirum yàlla du mbirum àllaaxira mbirum àddina la luñ ko lijjantee suñ diggante rek ba mu jeex fa la yem waaye demut noonu amut lenn lu yem fii kon nit ku ne lu muy def war naa xool na ko yàlla bëggee mu jëm ko naa defe war naa seet lu ci yàlla di bañ mu di ko moytu yàlla noonu yàlla dimbale nag noonu banu man loolu ci lii nu toll ak leneen luy dikkaat lu ne donc ñaan yàlla moo defal ñu àdduna ak waa laaxira mosal na ci sawara sàmm na sunu ngëm bu bind bunt yiw yi soob nu ci ak njub mottali sunuy mébét mais nu fa nu gudd ak wér ak mujj rafet